comme ça su leeral Leral TV nag du doon télé boo xamante ne rek euh, leneen lay jël lu mel ni ay politique wala leneen waaye itam dañu yëngu ci lu ne ndax ñun dañoo dugg tey ci dëkk bi xool exactement jeunes yi nga xamante ne daanaka ñoo fi ne lan la ñuy faral di def muy seen activité sportive wala leneen tey nag ñu ñëw ci IBC basket club nga xamante ne coach bi nekk sama wet tey moom moo ñuy waxtaanal exactement ñoom lan la ñuy en fait euh, quelles sont ces maanaam les activités du club na yan problème jànkontol et cetera ak exactement donc bu fekkee soxla nañ ay aide fan la ñuy aw salaamaaleykum coach. maaleykum salaam wa rahmatulah. alors euh, coach euh, maa ngi lay bàyyi kàddu gi nga nuyu askan waa Leral TV. waaw comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di di leen nuyu nii it bu baax a baax a baax ndax li ngeen def nii lu am solo la waaw ñëw di topp ay action di ko di ko suivre. waaw loolu dafa am solo. lii bi demee na <coughs> noonu ci ci bi. waaw basket bi basket bi xale yi xale yi dëkk bi bëgg nañ ko mais population bi ñi nga xam ne ni ñoo leen war a jàppale ñoo leen jàppalewul ndax man en tant que coach su ma ñëwee gis yenn terrain yi mu am nu mu mel man sama xol dafay jeex waaw ndax sama xol dafay jeex nax ñun mënuñu wax ne Sénégal sel pays basket la ñu jël si ay trophée yëpp te mënuñu am sax benn terrain basket bu baax ndax terrain basket bi ngay gis nii usine bi nga xam ne moo fi nekk moo ko fi def moom moo ko moom mais terrain basket bi ku ko gis ku ne xam ne laaj na defaraat képp koo xam ne nag yaa ngi dëkk si dëkk bi nga mën ñu si dimbali nga ñëw dimbali ñu si waaw ndax ñun basket la ñu am ku ñuy dimbali ku ne si basket nga ñuy dimbali waaw ñun soxlaw ñu xaalis soxlaw ñu dara ñun ku ñu ñëw dimbali ñu defaral ñu terrain bi moom nañ soxla. suñu terrain bi. waaw suñu terrain bi d'abord parce que soxla nañ trop ay yoo xam ne nañu jàppale ñu defal suñu terrain bi parce que ku bëgg dara aussi faaw nga nekk ci milieu bu baax pour nga mën a yegg fenn fi suñu terrain moom loolu mooy première des choses boo xam ne bëgg nañu jàppale ñu ci suñu terrain bi waaw. xanaa terrain bi rek la defaraat daal terrain bi donc kii affaire yi nañ ko chercher daal nañu def waaw. que terrain bi kii nii ne usine bi moo ko mën ñu ne UCS je ne mais terrain bi ñu ko bi ñu koy inauguré suñu kanam la ñu Sadigué lañu nekk mais bi ñu koy inauguré suñu kanam la hmm, veille ay 2017 yooyu boobu ba léegi amul làmp guddi gi duñu mën a entre quoi wala dara baaxul mu ngi nii terrain maa ngi dara terrain baaxul dara baaxul mooy lool mais suñu sañoon nag ñu utal ñu ay làmp ñu clôturer terrain bi quoi mairie maa wala instant maire fu mu nekk gars yi ñuy waaw liggéey liggéey bi demeewul noonu ñu ngi lekk xaalis bu dëgg te defuñu fi dara demandé ne autorisation ba léegi te chaque kii nii gars yi dañuy ñëw fii di politique def seen podium di empêcher entraînement te alors que ne ñoom ñu fi ñëw sa gis nañ fii nu mu mel mais ko defar. waaw club bi yàgg na club bi yàgg na ndax bi ay jamono nekkoon na première division mais ay tolof tolof tolof moo tax euh, yàgguñu fa ñu wàccuwaat waaw ñu wàccuwaat. Euh, actuellement bu fekkee soxla ngeen ay ay ay ay et lan lay doon ci club bi. waaw ñun ay yi ñu soxla mooy les anciens basketteurs tamit ah les anciens basketteurs yi nga xam ne nii dëkk nañ fi tamit dafa am solo ñu ñëw pour jàppale xale yi waaw ndax benn course bi fi nekk moom kase mooy bëgg a développe mooy doon président mooy lijjanti licence yi mooy lijjanti lépp lépp lu am si club bi rek moom moo koy lijjanti te loolu moom yaakaar naa ne coono la coono la loolu benn nit kese mënu ko def. ndax club bi mës naa jël ay coupe wala et waaw club bi jëlagul dara jëlagul dara jëlagul dara mais dañuy ñaan yàlla nag si kanam ñu jël ay trophées yu bëree bëree bëri bëri bëri ndax mas ngeen euh, jouer au niveau national wala au niveau départemental non joué nañ au niveau joué nañ championnat Sénégal première de première division mais année bi nga xam ne année boobu leen yéegoon ñoom année boobu leen wàcc waat waaw loolu nag manqué de moyen la ko moo tax manqué de moyen la fu mu toll nii daanaka joueurs yëpp dem nañ waaw ndax ku am bakku ne rek da ngay dem sa yoon waaw IBC e Basket Club benn club basket la boo xamante ne euh, ku nekk mën nga fi ñëw entraîner wu nga inscrire wu ñëw di entraîner wu et waaw c'est fiable moom c'est fiable. alors euh, actuellement nii vous êtes à quel niveau. bon moi je suis minime. il euh, y comme am na ay cadets. Euh, ay junior senior y a même euh, les am na ay pipi. ndax xale yi fi nekk góorgóorlu nañ bu baax a baax par rapport à. waaw xale yi fi nekk moom macha allah moom ñoo ngi góorgóorlu waaw man mi nga xam ne gan laa fi depuis bi ma ñëwee ba léegi waaw ñoo may yee ñoo def lépp mu wër na ne xale yi am nañ ambition am na xale yoo xam ne fi ñu dëkk dafa sori dañuy paas ay 400 a jug dara taxu leen jug léegi nag problème bi mooy ñu leen jàppale. sama dernier mot mooy Euh, fii c'est la vie quoi bu ngeen bëggee basket rek ngeen gëm ko rek voilà après da ngeen di dem mooy loolu muy nekk benn sport même bu dul basket benn sport yëpp après bu ngeen ko bëggee rek gëm ko rek après da ngeen di avancer parce que nga ma koy xool rek man mooy loolu noonu da di dem merci beaucoup. alors euh, chers téléspectateurs yéen ñu safoo di ñu seetaan ci Leral TV comme ça su ne ah, donc nii lañ koy amalee mu nekkoon IBC e basket club ñu am ay problème yoo xamante ne daanaka ñu ngi koy jànkonteel depuis terrain bi ñu tabax ko ba tey te terrain bi sax daanaka moom moomuñ ko usine bee ko moom te ñu ngi sàkku vraiment donc autorité locaux yi ñu jàppal leen ci terrain ndax ñoom wax dëgg fa yàlla ñu ngi fii di entraîner guddi ak bëccëg mu nekkoon ay kaddu yi ñu fa jëlee Leral TV à Mboro